Just leave it. It will go by itself. I did. I did. Allah.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 حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح استنكف عن طاعته فإيمانه لا لا يبدا لا يبدا وإما أن يكون إنسانا وإما أن يكون إنسانا خارج دائرة وهو الكافر والملحد وإما أن يكون في دائرة الإيمان لكن إيمانه لا ينجيه وإما أن يكون في دائرة الثانية أي إيمانه ينجيه وفي وسط هذه الدائرة الكبيرة مركزا فيها انبياء الله سبحانه وتعالى ورسله الذين هم قيم إمم او قمم الذين هم قمم ايها الاخوه الكرام من اي مدد في لغه تشتق كلمه الايمان من امن اطمئنان يعني ليس من طريق الى ان تكون امنا مطمئنا متوازنا راديا الى ان تكون موصولا بالله عز وجل فيا عباد الله قال تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب وفي الذي واغفر لذكرى بسريانا ليس ريال مباركه على من حمل المؤمن ويمكاتا من يمكي وبيت عمل جنيدما يجوزي النبي صلى الله عليه وسلم أقوى كلام السحرامي أكيد كما يكتب سنه يوم القيامه موجودي من كل نسين خطبه باسمي muy مفهوم الإيمان مانا naka يوم حمل الإيمان دوم دوم يالا wala dundu doomi aadama naka la war a toll si yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala iblis ñëpp xam nañ kan mooy iblis iblis loo ko na si koo xam ne loolu si ren koo xam ne day ko naan malaaka yi benn benn makaana maanaam benn place waaye tax doon mu gëm yàlla waaye amoon na yoo xam ne iblis gëmoon na ko si yàlla iblis xamoon na ne yàlla subhanahu wa taala moo yàlla gën a màgg si loo xam ne doomi aadama bi ne rek wala lu yàlla bi ne rek yàlla subhanahu wa taala moo la gën a màgg ibni sukubam mu ñu yalla subhanahu wa ta'ala mu ne sama gaay ma ngi wax sama gaay iblis ni xam ne ni bon la woon waaye mu ngi wax sama gaay yalla ya subhanahu wa ta'ala iblis du mel ni yalla kii na yalla ya muy borom iblis du mel ni yalla subhanahu wa ta'ala ku màgg la iblis du mel ni yalla subhanahu wa ta'ala moo fi dem bi yëpp yawmal qiyaama mu wax ne moo Iblis ba ko yàlla subhaanahu wa taala di wax ne naa la ko waxal mu ne ko yàlla bàyyi ma fi bàyyi ma fi waaye seen nit ñi nga xam ne naa leen wécci naa leen jaare kanam naa leen jaare kanam pour wécci leen yàlla subhaanahu wa taala mu ne ba mu des suma nit ñu baax ñi Iblis dafa nag unzurnii qaala unzurnii ilaa yawmi yub'asuun e yàlla bàyyi ma rek bépp keroog bi ngay jekkale doomu aadama yi moo ne Iblis kuy ku la fan la moo doon Iblis ñun waaye Iblis dugal nañu baax bi yàlla subhanahu wa taala war na ko ne xakkañ naa la bàyyi wax boobu waaye kenn du la def suma jaam yi xanaa ñu bon ni xanaa kaajoor yi ak yéefar yi rek nga laa def suma jaam yi waaye suma jaam yi baax yi nga xam ne ñu ma fàttali ko mu nekk ñoo jëlee mun a dara kooku mooy Iblis maanaam Iblis lam yuti ilaha azza wa jalla Iblis toppul yàlla wéddi na yàlla gëm na yàlla moo ko bind gëm na yàlla subhanahu wa taala mooy kawe bi gëm na yàlla subhanahu wa taala mooy ku màggat yi waaye moom joobu ndigali yàlla ndi ko yàlla subhanahu wa taala waxee ne wa yasquna li malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis aba wa takbara wa kana min kafirin iblis dafa bañ parce que lu ko tax moo leen fa jaay rëy moom mu leen sujudal te aadama ndi yàlla bind aadama si suuf moom ñu def ko si nga safara moom mu bañ waaye moom nekkul ne gëmalo wéj na yàlla waaye xam ne yàlla subhanahu wa am na bon nag fan mun xidu wal kaafiru ima an yakuna bidaya al iman lakin al iman la xam ne sax mu daane moom si góorgóorlu ne moom gëm na yàlla waaye gëm yàlla bu jëriñu ko dara parce que def ki nga xam ne dafa gëm yàlla li mu war a def ki nga xam ne dafa yaakaar yàlla li mu war a def moom taxaw si tànk yooyu wa imma an yakuna fi daara saaliya an al iman yunjihi fi hadi al wasat wala mu nekk nga xam ne comme yàlla dina ko jëriñ iblis dam gëm si yàlla jëriñu ko dara xam ne yàlla ko maaga la yàlla ko moo ko binda yooyu gëm na ko waaye jëriñu ko dara waaye iman bi nga xam ne moom la ñu wax كم يا رب تحملنا بكل كريم فوق البيزا كم نسعى يومنا هيا نجدد إيماننا كاينين بفلاسكم كاينين بفلاسكم من لم يفعل بيا نك على بذكر الله يا رب تطمئن القلوب نك صفات يا رب سيرح لي أنا بالله الموجود لي لولا جبت إبليس هو مسلوله من الدائرة الثالثة mooy beneen daayira bi nga xam ne maanaam beneen groupe bi nga xam ne ñoom mooy groupe anbiya yi العمل السيبقوتية تنعبد الله وتنعبد الطاغوت مولد الجاموية مولد لوح من الطاغوت الطاغوت لوح من الشيطان لوح من الفلاكي لسجاموية لوح من الفلاكي لسكيمان لوح من الفلاكي لسكومية فلو الطاغوت مولد ونحن نتيجة بالأغنى مولد الجاموية سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام الإيمان لم إيمان لم يكن يعني مولد الإيمان إثنان مولد mooy xool bu dal wala xel bu dal si ki nga xam ne mu ngeen fàttali ko yàlla subhanahu wa taala ni kooku du am benn ragal du ko am benn tilaale ni yàlla subhanahu wa taala moo ko si xolam قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فمستحيل ألف مستحيل أن تستعد وأنت مغرب عن الله سبحانه وتعالى ويقول ومن أعلن عن ذكري مخبرني وأنا كو حمل تفجر على الكناوة كو من الباب Belum ada kepada-kepada Akan ini pun mesti kanan Buat yang dia tiba Dan tiba Pasti mau beri Dari atas malam balang ke dalam Lalu kau kena sikap Mau iman Mana pun dia ada pun Nyau Situ yang kalah Situ lebih Dia akan beri adna Dia akan beri adna Betul dia atas malam balang ke dalam Ya Allah sekarang kau kanan Koman a'arada an zikri Fa'inna lahum ma'is Tentangka Kau nak suruh Ya Allah Kau nak suruh Ya Allah Kau nak suruh Ya Allah Kau nak suruh Ya Allah Kau nak suruh Ya Allah fatale ko yàlla dooy fatale ko yàlla doo tudde yàlla doo julli julli digoom yi doo julli julli si wax doom waaye yàlla ko parce que bàyyi nañ fatale yàlla su ma taalaa mu xam ak xaaral daal zikri ko yàlla moom ay sa dakkaar nga ne waaye nga gis ne jafe-jafe boobu bu nekk yàlla si torop ايام الاخره يوم سيالها فالامر وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره بركر يوم دوغو كسي حمل بر حرن حركنا يلي يوم نعمل نجا فرن سن بر يكو هول تير سي رب لو كري بون بو كري دي ومن اعرض كيف تعمل الجمله يا سبحان الله من المعلوم للمؤمن ما من انسان على وجه الارض الا يتمنى سلامه والسعاده مقبل ام كلهم على الهدى التوصول تلو هو مبدا مويلا كان لقلوب وإن من الله هنا نجاو يا لفي يا سبحان الله في موته آدنا في الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث من كوس آدنا آدنا كوس آدنا الله هنا آدنا آدنا وين موي في جام يا لفي سبحان من الحمد لله سبحان كل سبحان دلنا سجام يا لفي أو ترى لهم ما كنا أو ترى لهم ما كنا يقول يا سبحانه وتعالى سماي وح يا لا تهمي وح سماي جف يا لا تهمي لما يدفع يا لا وكنا موي مسلم والموقف الذي حينما يبحث عن اذا كان موافقا ان سلامه الانسان في تاثر به لك دوم على بتعمل مو شخصي مو بتعمل كسنه جامو يا الله ونحن يا رسول الله وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون كلها ما كنا يدور على ما كنا كلها ما كنا يدور على ما كنا كلها جامو si jaamu yàlla boobu nag la doomu adama di liggéey moom diggante ba suñu borom naka laay eggee si boromam naka laay déggee boromam njëkk la jël na yëpp jël na yëpp def ko yàlla subhanahu wa taala jël na boppam ko def na nag ma umiru yërmande balaa ngay mën a jaamu in lam ta'rifuuni fa kayfa ta'rifuuni booy jaamu yàlla mbokk ñu du laabaatu du foog naa du yaakaar naa du ñoo jàngal du la xam naa loolu bokk na si ziyat iman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 وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مؤمن الدين kon yàlla subhanahu wa taala waxee al mu'minu yatamatta bi ni'matil iman jullit nag dafay bànneexu si bànneexi gëm yàlla jullit dafay bànneexu si bànneexi gëm yàlla yàlla subhanahu wa taala wax na Alquran ne fa ayyu fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun yàlla subhanahu wa taala mu ne ñaari groupe am waaye ñaari groupe bi ban groupe moo suffisant pour am sécurité pour am tranquillité pour am li nga xam ne mooy kóolute mulia siaran berubi. Ya semua terhadap itu asal aku kanne. Ayo sekali bagi pun guru siaran berubi. Guru bapa yang ada guru am. Guru itu biara, guru kita hamil dengan dia biara sepanjang terhala. Yang guru biara kan bos kita na yelo kira kira kira kira. Kan bos kita na yelo kira semua sama dengan arne siaran berubi. Ya semua terhadap ini kultum tidak ada musibah yang hamil. Allah tidak amanu. Ya semua terhadap ini perkara ini. Bila ñenn ñooy am sécurité yàlla ñenn mooy ñenn am kaaraange yàlla yàlla su ma demee alladina amanu alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm subhanallah alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm nit ki mu nga ne gëm naa yàlla waaye yow sa bopp yàlla boo ko fu jëri yaa ngi tooñ yaa ngi def alal nii yaa ngi bàkkaar bu dee bëccëg waaye su ngeen ne gëm naa yàlla te yàlla su ma demee am na ñaari fan am ñaari tur am yàlla li leeral nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla di aar aar na fi àdduna aar na fi amee mu àllaaxira yàlla soo tax mu ne alladina amanu ñu gëm yàlla wala mu jël ci suuf ñu maanaam ne loolu waaye seen iman seen gëm yàlla boole si doon boole si bàkkaar mu ngi tuub mu ngi ak dëkk mu ngi jaam yàlla mu ngi yàlla subhanahu wa taala santaane nekk si li nga xam ne mooy yónni yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala mu ne ulaayika mu ne ñooñu rek lahumul am ulaayika lahumul am ku bëgg am si yéen di bokk jullit ku bëgg am li nga xam ne mooy iraay yàlla كيراني يا سبحانه وتعالى من أف إيمان أقوم يا الموسيق من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأنا من يا هم يوجد نوجد من يا هم يوجد تفسير الصراط المستقيم مو ينتهي يا سبحانه وتعالى من صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مو مو يوجد حمل من يكون من يا so kalimatu iman min tasdiq boo ko def si gëm yàlla moo ñu gëm moo ne nga déglu nit ki déglu si jëfam nit ki déglu si ya waxam nit ki déglu si jëflante ma doomi aadama yi mu ne nag aman wama anta bi muminin lana walaw kunna sadiqin wama anta bi muminin lana walaw kunna sadiqin mu ne nag yow nag doo ñu mën a gëm mukk fekk nga ñu déglu bon si nga xam ne la gëm yàlla doomi aadama la mu ne nga nekk ku déglu si sa ak sa jëfee أي أيوة من أنت بصدق بمصدق لنا فإن وإما أن نفهم أن الإيمان الآن هو أمن ونذكر بمن ضمنه كم يعلمون موي فوربه كم يعلمون شرعي الإيمان أيها الإخوة أما مفهوم شرعي الإيمان فهو اعتقاد وإقرار وعمل وتعاقد به والإيمان أولا من نكي يبدو من وراء البراكتس لا ما نقول لا يا سبحانه وتعالى جام kon war naa jaam yàlla ko dara wala sakaane lu yàlla sakaane ma def ko ci julli bi juróomi koor wari koor saraxe li nga xam ne aji maa ko su ma ko yàlla may loolu yëpp ay iman la ay comme yàlla yoo xam ne julli bi su tolloo rek war na ko mën a def ñun ba seet waaye wax ne minor bi baax yi moo tax mu def baax yi kon li nga xam ne mooy cause sociale bi te gis doomu aadama jullit bi dafay seen lii moo ko sut mu gëm loolu lii sutu ko mu wéy ko yàlla subhanahu wa taala ne minor bi baax yi moo tax mu def baax yi amoon yëpp zaali moom a jazaa amoon yëpp zaali min ko waaye kii yëf loolu nag lan mooy payam ila xisyun fi xayati dunia yàlla su ko si àdduna jàpp ne moom gëm na ne yàlla mooy commandement bi gëm na ne yàlla moo ko bindal waaye nag jaamu yàlla b o naan ko moom amul benn njëriñ ko ko waaye iblis boobu bu ñu mos a bàyyi c a x t u bu nekk rek mu ñëw topp si suñu ndeyjoor mu ñëw topp si suñu càmmooñ mu ñëw topp si suñu gannaaw mu ñëw topp si suñu gannaaw fu nekk iblis ñu doon wax pour dugal ñu nga e moy yoon xam ne moo yoroon n nga xam ne ci a moo yoroon bon moo yoroon nga xam ne dañu ci xanaa la y à l o a yàlla mos a bokk c o dëgg yi. loolu yàlla muslim mooy yaay ba Allah fa ma ne t a o a a x u gaay Ousmane Diop bi muy Alquran muy sunna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne fa laa xawf yow doo am dara doo ragal mu dara doo ko ragal si kaw suuf dara doo ko ragal si kaw àdduna boo ko jëlee wala hum yahzanuun waaye nag du am gàcce du am gàcce mën na nag topp Alquran topp la sunna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di nga am gàcce àdduna te di nga am gàcce àllaaxira te gàcce àdduna mën naa mun nañ koo mun waaye gàcce àllaaxira yaa ngi koy wax si kaw suuf bi kon nag jub ñu ko amee si la iman mooy gëm yàlla jaamu ko Thank you.